Uras Info. Ribari Gao. Tewor. Uras Info. L'info à temps réel. Uras Info. Django du te tedagu Notre force. Le traitement de l'info. asalaamaaleykum mbokki avenir Media, Sénégal mbokki àdduna yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziare baax tey jii ñu ngi fii ci Medina Baye ak comité d'organisation bi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Cheikh euh, Maam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 Euh, man ñu ngi may wax Ibrahima Thiam di président jamiatu biirama islam bi Cheikh Mamadou Laaj Muntaxa Ibrahima Niass. waaw alhamdulilah loolu boo ñu ko laajee dañ ci sawar a tontu bu baax a baax a baax ndax fi mu nekk nii benn programme rek lañ am moo xam ne jël na suñ lépp suñu yite yëpp muy le 27 incha allah. tombeek euh, nekk journée inauguration wu jumaa ji nekk suñ ginnaaw muy jumaa Cheikh Mamadou Laaji Muntaxa Ibrahima Niass ñu tàmbale woon ko nag depuis daaw yàlla defal ñu tawfeex ren mu pare ñu war ko inauguré incha allah rabbi waaw préparation yi nag bañ ko tàmbalee yàgg na ci ay jéego yu am solo ci yeneen service waaw dox neen fépp foo xam ne rek waroon nañ fa dem euh, ci kàttanu yàlla dem neen fa bépp lettre boo xam ne waroon nañ ko déposé ci autorités yi déposer nañ ko ba bés bi jot mu nekk le 15 xam ne set setal bi démb lañ ko commencé woon la 14 ci teewaay waa UCG ñi xam ne ñëw nañ fi wax dëgg yàlla def fi liggéey bu am solo amal fi liggéey bu am am am solo ànd seeg mbokku taalibe yëpp ñu ngeen gis fii yëpp macha allah donc ak ànd seeg it mbokku taalibe yi jógee ba jëlañ taalibe Cheikh ma Cheikh Moussa Soxna yi ah, ñu ngi fi di jàppalante macha allah ñu ngi daal bu baax a baax a baax lépp loo xam ne daal war nañ ko war nañ ko def ngir bés bi taaru lépp loo xam ne war nañ ko def ngir bés bi réussir rek daanaka mbokk taalibe yi taxaw nañ ci bu baax a baax a baax a baax incha allah ba fi mu nekk nii mu neen wax ne alhamdulilah tout est en place incha allah rabbi ngir préparer le 27 incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta aliimul hakiim رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ أحضري لنا بهذا المحضر ولتأتفي بنظرة تأتي لنا بثفر الحمد لله رب العالمين من لا سنبوك طالبي محمد صلى نك طالبي شي دائرة بي دي لجي شي دائرة بي دي عندك سرين بي دي لجي المولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه nekk ci biir daayira jamiyatul birri wal islah bi nekk coofa fii bu Cheikh Maam Alxaaji Cheikh Muntaxa waaw alhamdulilah Cheikh Omar question bi am na solo comme ni nga wax rek maanaam tey organisation bi biñ gàmmoo ba léegi ñu ngi ci mën naa ne sëriñ bi bi mu génnee ci gàmmu gi rek la nekk la dugg ci organisation bi dugg ci programme immigration bi alhamdulilahi rabbil alamin am na avancement yu bëree bëree bëri ndax mboolem kilifaam yi nekk ci dëkk bi kilifa diine ya kilifa aadeg yëpp ku ci nekk bind na carte yónnee la ko ñëw na ba ci yow ku ci nekk rek jaar na fi mu war a jaar ci kilifa diine yi ci kilifa aada yi di oo ñëpp nag ci bés bi nga xam ne bés immigration la ndax am na ndigal ci sëriñam gannaaw bu mu jógee pour liggéeyal l'islam pour liggéeyal tariqa tijaan pour liggéeyal faydu si buntu Cheikh Ibrahima si buntu Cheikh Mouhamadul Aqib sëriñam biñ inauguré biñ tegee premier pierre si jumaa ji ñëpp di ko si jàppale ku ci nekk di ci def benn mag ñaaram ba alhamdulilah liggéey bi yegg tey mu am fierté am kontante bëgg mboolem taalib yi si doon def seen dërëm ak seen ñaar dërëm ñëw fekkee ko moo tax ñi ñi def si organisation bu am solo incha allah lépp loo xam ne war ko cee def si mbiru sécurité si mbiru euh, daluwaay ci mbiru dalal gan ci mbiru bernde lekk ba suur nan ba mandi lépp incha allah ñi ngi ci. te yëngatu neen ci te incha allah ku fi ñëw da nga xam ne bés bi waaj neen ko ndax sëriñ bi génnee na moyens yu bëree bëree bëri mu ànd ak mbokki taalibe yi loo xam ne lépp pour bés bi la incha allah bëgguñ kenn koo xam ne da ngay ñëw si bés bi di am lu la ci nangam wala nga am bëgg lekk wala nangam bëgg neen képp koo xam ne da ngay ñëw si bés bi ñu bernde la teral la toppatoo la bés la boo xam ne bés bu ñu fonk la bés la boo xam ne bés bu ñuy fuglu la bés la boo xam ne bés bu ñuy xaar la incha allah oote la ñu ngi ci oo ñëpp ndax ubbi jumaa la wa anal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahad ba pare ñaareel ba Cheikh Mouhamadul Mahi naatiq rasmi war a ñëw jiite ko ñu war a am cérémonie officielle di si o ñëpp gannaaw loolu guddi gi am na gàmmo gàmmo goo xamante ne ni balaa muy commencé al muqaddamul baraka Cheikh Moussa Soxna dana ci def conférence bu am solo bu paree sëriñ bi soog a jël def gàmmo ci guddi gi tatagal ganam yi gërëm leen moo tax daal lépp loo xam ne war euh, na ci waajaay bi rek def nañ ko jël nañ ay bâche yu mag ay traiteur jël nañ lu bëree bëree bëri sëriñ bi jënd na ay gëléem jënd na nag den lu ne loo xalaat rek sëriñ bi préparé na ko pour def ko ci inigration bi parce que bés la boo xam ne bés bu mu fonk la kon daal ñu ngi ci oo ñëpp di ci oo góor ak jigéen mag ak ndaw di oo waa ñu laa neem waa Medina Cheikh Ibrahim ak mboolem muqaddam yi fu ñu nekk mboolem taalibe bàyyi fu ñu nekk rek ñu ngi leen di oo ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn salaamaaleykum wa rahmatullah. alhamdulilah Samb Sall la eh, ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp bu baax di ndokkeel bu baax waa Avenir Média. di kontaan tey ci bis bi nga xam ne teew ngeen fii tey ñu ngi ñola dem le 15 janvier euh, ci di waajal rek inauguration juma Cheikh Mame El Hadji Mountakha Ibrahima Niass comme ni ko gars yi waxee sànq ba léegi. tey nag ñu ngi fii comme niñ ko waxee defar bi du lenn lu may ñi nga xam ne tey war nañ teew ci bis bi bu ñëwee ñu nekk ci anam boo xam ne anam bu baax la waaye ci nekkin boo xam ne itam nekkin bu rafet la. moo tax depuis démb ñu ngi fi nekk fii di rato di bale di defar di defaraat ngir mbir yi mën a jaar yoon ndax jumaa ji. Euh, jumaa la joo xam ne ci ndigal rek la ko sëriñ bi defee ak ci mbëggeel ndax boo gisee jumaa ji li muy taaru taaru ak li muy yaatu yaatu rek ay borom yu mbëggeel rek ñoo ko def euh, ñoo ci dugal seen i dërëm dërëm ba jumaa ji toll fii ndax buñ na tey ziar la ñuy def mën nañu wax ne tey waa faydu ñoo ñoo ko moom wala nangam buñ na gàmm mën nañu wax waa tariqa nangam waaye buñ na jumaa moom mbooleem julli ci rek ñoo moom jumaa kenn amul ngant bañ a ñëw ci la le 27 boobu noonu incha allah donc ci loolu nag ñu ngi ciy sollicité mbooleem ñi nga xam ne muy nguur gi ñi nga xam ne ñoo gérer wàllu gouvernance wala ñi nga xam ne ñu ngi ci mairie fii euh, ci wàllu ci commune bi nga xam ne fii la ñolaaneem si la ñolaaneem mbandaxun bi ñolaaneem bokk ñu ngi leen di woo bu baax di di leen ñaan ñu gën ñoo mën a taxawu ci bis bi lépp lu ci aju ci wàllu ndox yi ci wàllu courant yi ndax ni ki démb rek waa Sénélec jot nañ fi ñëw euh, daal di wàccee li nga xam ne muy courant bi yokku euh, volte yi bu ñu gën a mën a am matériel yoo xam ne dina ko attan bu baax a baax a baax euh, dugal nañ ci seen i loxo ñu ci wel ne waa UCG comme ni ko sama naataango bi waxee sànq ba léegi ñëw nañ fi démb ñu ngi doon jàppale ci wàllu yooyu bayal bi li ngay gis ni mu tàlli ni yëpp ñom ñoko xàlli ak seen auto bi ñoko defar ak yenen yo xamné tay ñun ñu ngi koy sentu ci nga xamné ñu ngi koy wajalé bis bi inshallah rabbi le 27 janvier à Ñolanem. alhamdullilah rabbil alamin ma ngi nuyu mbokki talibé yi fi tew yëpp ñi ma taxawal nga xamné ñun ak ñom ñoo sékk liggéey bi lu démé ni di nuyu sëriñ bi d'abord wala ma commencé cheikh mam alhaaji cheikh muntaha cheikh Ibrahima Niass diko ñaanal yàlla yagal ko fi lool tam ànd ak wér. ñu yàgg ànd ak moom di liggéey di wax ne kontaan nañ ci liggéey bi nga xam ne moom lañ ànd ak moom muy jumaa ji nga xam ne taxawal na ko fii ci Medina Baye Ñalaaneem ñu ñuy xaar te am nañ yaakaar bu baax ne dinañ ñëw ci bés bi ndax fuñ ci dem rek da ngay yëg ne dañ ñu doon xaar wala da ngay yëg ne dañoo sawar ci liñ leen wax ñun jafe-jafe biñ foogoon ne ñoom dañ koy am yëpp wax dëgg yàlla yombalal nañu ko diina ñor na leen kilifa yi ñor na leen wax dëgg yàlla surtout kuñ ci joxoñ ne Cheikh Maam Alhaaji la rek da naan kii de maa ngi koy gis ci faydu maa ngi koy gis ci internet bi maa koy gis si télé yi xale bu bu nekk ci yoon la wax dëgg yàlla duñ def lu fekk si leen ci ndimbal li ngeen ñu ñaan ñu ngi kontaan bu baax Cheikh Omar di ñaan sa site bii bu bés baa yàlla nga ñëw bokk kook ñun. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu sëriñ bi <clears throat> di nuyu mbokki taalibe yi di nuyu kenn ku ne ci turam ak jëmmam di ko siyaare ci yàllam ak maqaamam di sant yàlla ci yàlla may gi mu may ñi nga xam ne luñ yaxal la ci téere bi ne doom yi suñ gëmee nekk ci li bàyyi nekkoon dalee jëfuñ sax la bàyyi daan jëf yàlla dana leen yëgal ci seen dëggu wala si na amunu wa tabaatuhum zuriyatuhum bi imaanin alaqna bihim zuriyatihim wa ma alannaahum min amalihim min shay'in loolu alquran la kon liggéey ci démb ak ci tey ba suba loolu mooy baaw wëli yàlla yi man sabata wilaayatu wajabat xidmata lahu ku wilaayatum sax liggéeyam ko dafa liggéeyal ko dafay nekk lu sax te lii dafa bokk ci buur loo hittee taalibe yi ndax Baay wax na ci dégg nga siyaadatu jawaayir ne wal xidmatu sirrun kabiratun fii tarbiyati maanaam liggéeyal la géeloo taalibe bi ci jamono bi mooy tarbiyee mboon mu rëy la te tarbiyee nag duun ne dox rek jëm ci saatu fëgg sa dënn ne maa yàlla ci la tarbiyee yem waaye foofu mooy bidaaya bi ndax moo ne alhamdulilahi bidaayatul asaabi cheikhi nihayatul axtaabi bidaayatul asaabi waqat tabaxtu arbaabal kalaamil maarabi fama raaytu fi siwa kalimim fi siwa qadamil ula alati adduna marata bil fari hendina wamal maqamatil faani wa salif fama fasamula xutbu yi njëkk yi fañ dabalee fañ yemoon wala sama taalibe dalee te xut bu yëpp day liggéeyal seen adduna ba mu jeex baay indi sampal ñi liggéey pour muy iskale boo xam ne taalibe daf cee joxe pour àgg ci pie yàlla bi ñuy gërëm sëriñ bii nag nga xam ne guddim ak bëccëgam yëpp liggéeyal bayam la dafa jaay sët gi jaay daret ji jëndee ko taalibe ndax xam na ne foofu la njëriñ nekk ndax kat sëriñ Sali Cissé nettali nañ ne bàyyi na ci koosi ba xam ñu wax ko bàyyi bàyyi ne yëkkati leen ko mu bay kooku nag su fekkee ne mooy euh, sëriñi taalibe yi ndax bàyyi moo ne woon sëriñ yi sa yónni wu ngi tukki waaye seen sëriñ mu ngi fi kooku bay ci war ba xam kon taalibe bu ñëwee da war a dee sax loolu nag dafa mel ni dafa doon nelaw wala dafa mel ni dafa bu woon ba ay bagaasam dem waaye Cheikh Maaraji mi ba mari na fële te bàyyiwut ko waxin la mu ñëw sanc fii ci àll bii woo fi ñi nga xam ne liggéeyal baay rek a leen tax a jóg dégg naa benn sëtu baay mu nga ne toog mu nga dëkk ba Amérique mu nga nekk ba Amérique yaayam mu nga dëkk Amérique kon ñoom xam nañ ne li Baye waxoon ne wala karamatan akbaru min xidmati li fiaqi man loolu bashira euh, dàq na ko dàq ak tàmm ndax naa laamin naa si jim utilisé wala karamatan la amul benn karama nit dana xoor jokkale ko nit dana dugg xalwa jokkale ko xalwaa juróom-ñett fukki guddi gis nañ ko fi xalwaa téeméeri fan ak ñaar fukk ñaar fi waaye gis nga dafa andi rek na liggéeyal ma kooku ci la ñu mu sanc dëkk bi yàlla na ko jik te yàlla bu mu nekk mu waaye ñu nit yàlla nañ sax di liggéey di ànd moom ñu reconnecté ni ci biir sëñ Omar ñu lay sant ndax lii liggéey la ci liggéeyal Cheikh Ibrahima fii ñu toog nii fii rek lañ mën a yem waaye kii jël waxukaay ak nit ñi liggéey mu defal ñu ko archive boo xam ne taarix du ko fàtte ba pencam yàlla kii ci ñiy liggéey la bokk te nii la war a mën a mel euh, doom bu niroo baayam wàcc na kii doomam papaam mooy ki nga xam ne moo doon secrétaire Corna Santem Cheikh Mamadou Wagne mu doon liggéey liggéey boo xam ne ay xatum ñëpp gis nañ ko mu doon ko rafet la teemut ci loolu daan ko jàppal kurus daan ko dagg ay itteem maa ngi koy dégg ci ron garab ga sax ko sëriñ bi yow sa parole soxla nañ ko bis sàngam kon dafay liggéey dagg ay itteem ñëw jox ci Cheikh Ibrahim lay ñaanal lii yàlla na ay yal yàlla na ko moom te yàlla na jur yeneen ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim si ñaq yi yal na yàlla sotti ko ci si njaboot ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi jégalu ci kàddu gi dañ kontaan amuñ xamuñ sax lu ñu war a wax ak qadri miqdaration salaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla bu baax ci taxawaay bi nga xam ne yàlla moo ñu ko may ci ni'matul ijaadi wal imdaad ci barab bi nga xam ne barab bu sell la waaye barab bu kawe barab bu yëkkatiku la muy jumaa ji nga xam ne tey àddina bi yëpp ñu ngi koy fooglu pour ñëw liggéeyal fi Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu sufiyanke yi dañuy wax ne àddina na la ci ñaar doy mooy soxbatul faqiir al aarif mooy nga ànd ak koo xam ne aarif billaahi la te aarif boobu moo mën a defar sa sa bakkan ba nga xam ne bakkan bi dana egg ci xadaf laha man zakkaha waaye mu ne ñaareel bi mooy nga xidmaal waliyu kaamil waliyu boo xam ne waliyu kaamil la kooku muy Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu waaw mu waxoon ne ne ki mat mooy ki nga xam ne dafa boole ñaari maqaama yi kooku nag tey ñu ngi ñëw ci barab bi nga xam ne fii nekk mu Cheikh Maam Haji Muntaqa ibnu Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ci jumaa ji nga xam ne tey moom la war a ubbi jaamu yàlla ñëw fi te Baay radiyallahu dafa wax ne anaalu maraami foo ko maa kuntu amila إذا ترت للحادي الذي الكل أرشدا man Baye danaa am li ma bëgg ci kawe li nga xam ne maa ngi ko doon sàkku heure boo xamee ne maa ngi jël avion wàcc dem ziyaara ji yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonent boobu moo jubal ñëpp waaye fi soxla ci wax ji mooy alayka salaatullahi suma salaamu li taqbal bunyaani wa tubqihi masjida yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa te nga sëlmal ci moom waaye tabax bi nga xam ne maa ngi la koy tabaxal muy jumaa ji nag ma nangul tabax bi kon tabax bi nangu neen ko waaye ñu dégg ci ne képp ku fa jaamoo yàlla rek yàlla na la nangul tabax boobu noonu waaye nanga ko def mu nekk di jàkk ndax wa annal masajida lillaahi fala tad'u ma'a llaahi ahada jàkk yi moom yàlla moom moo ko eyoo te moom moo ko moom bu ñu fa xoo ku moom bu ñu fa jaamu ku moom bu ñu fa tudd ku moom kon nag jàkk jooju nga xam ne moom la bàyyi ñaanul yàlla pour yàlla nangul ko tabax bi mu def ko mu nekk di jàkk tey ja tey jumaa jooju tey moom moo jur jumaa ji kon ñu ngi ñaan yàlla bu baax yàlla na ñëpp ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm yàlla may ñu lëggeel Cheikh Ibrahim gu sax eh, Mouhamed Zeynab bi nga xam ne moom leen tuddee Cheikh Maam Hadj Mountakha ibnu Cheikh Ibrahim dafa wax ne amul benn loxo boo xam ne lëggeel la Baye Niass ba loxo boobu futtu lu mooy ne mujjanti loxo boobu lépp dafay nekk alhamdulilah da nga yëg yokkute ci sa jëmm da ko yëg ci sa waxtu di ko yëg ci sa doom di ko yëg itam ci sa famille kon dëgg-dëgg liggéeyal baa ngi amul perte Mawlaay Cheikh Assane Deme radiyallahu anhu nga xam ne xam-xamam lu kawe la dafa wax ne maa ul barakati yan faju min waadil xidmati carno mu ne maanaam robinaab barke robinaab xidma mu ngi ballee ci maanaam ci ci maanaam ci ci ci robinet ab liggéey kon liggéey moom mooy defar nit ki ci zaahir moo ko defar ci baatin ba tey loolu la suuf sufiyanki di wax ne man istaqdam naaw xadam naaw ana kan moo ñuy liggéeyal ñu ñu jiital ko kon ñu ngi gërëm ñu ngi sant e, sëriñ bi nga xam ne moo déplacé wu ñëw fii di jël programme bi yal na yàlla yokk la ci zaahir na yàlla yokk la ci baatin barki moo na Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ñu ngi gërëm cheikh bi mu cheikh Mamadou Hadji Mountakha di ko ñaanal ci zaahir di ko ñaanal ci baatin yal na yàlla yokk ko ci zaahir yokk ko ci baatin ndax dafa teg tànkam fi Cheikh Ibrahim tegoon tànkam nga xam ne Baye waxoon na ne fu kulli mashkulun bi kulli muhammadin sama lépp gi man Baye dafa soxloo lépp yonent yàlla muhammad Cheikh Maam Haaji Muntaxa dafa dem ba nga xam ne léppam dafa soxloo lépp ak Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moo tax bàyyi rek la bëgg moo tax ñëpp topp ko Baye mooy Baye mooy loo xam ne amul amul amul loraange ndax hôpital mën ngaa dem ñu aaye lu ne ba mu des ndox ndox nag moom kenn du ko aaye kenn kon ndox moomu tey mooy bàyyi te alquran waxoon ñu ne lépp luy dund mu ngi dundoo ci ndox ñu ngi tënk ci kàddu fi beneen yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa Info, Ribari Gao. Tewor, Uras Info, l'info à temps réel. Uras Info. Django du te notre force, le traitement de l'info.